nuyu naa leen bu baax fan wu gudd ànd ak wér sutura ak barke jàmmi àdduna ak alaaxira yaa nañ ko yàlla booy defal man nag tey dafa am rek lu ma jaaxal xëy na su ma ko waxee ñu wax ma lan moo ko sabab li ko waral xëy na dinañ ma ko mën a wax artistes yi lay laaj artist yi sportifs yi chanteurs yi ndax dañ ay sénégalais lañ wala wala duñ ay sénégalais man loolu sama problème la de ndax ay sénégalais lañ wala duñ ay sénégalais. wala boobu ñun daal liñ sëkk ak ñoom mooy di leen jariñ di dox ci seeni yitte di leen defal teraanga suñu wootee ñu ñëw bu ñu soxlaa ñu wuy ji leen mais su rombee loolu daal kon ñoom dafa mel ni sëkkuñoo sëkkuñoo ak Sénégalais yi leneen xëy na nag yéen ngeen tane ma ci bu ngeen ma ci tane ngeen dimbali ma ci ci ci ci ci commentaire yi ngeen dimbali ma ba xam nu mu demee noonu ndax man dafa am lu ma gëm jàpp ko man li ma gëm mooy. réew de boo ci nekkee am loo xam ne dafa yëngu ca réew ma te engagé képp ku dëkk ca réew ma ma jàpp ni képp ku ne ca réew ma ca nga rawatina nag kuñ naan porteur de voix rawatina ku yore mbooloo rawatina koo xam ne soo waxee ñu déglu bu jëfee mu fees mais nan kooku nan la mën a nekke cim réew lay xew ca réew ma yoonam du ca ne wala même bu dee yoonam mi ngi ci mais ci suuf la koy dox ci suuf la koy wax am na fa mbir di toll dox ci suuf ak wax ci suuf nekkatul légalité dootul logique dootul nekk lu ñu mën a valider ndegam xalif généraux yi ngay ngay gis sénégalais yépp ànd ni il est temps que ñoom ñu wax ci kaw def ko ni ko Cheikh Adjabtu daan defee waxuma la kon ay sportif waxuma la ay chanteur waxuma ay artiste comédien consort waxuma ñooñu kon kon lay amul li jaadu kay mooy bëgg xàjjale dëgg ak fen man loolu laa gëm neutre amul ay dama apolitique ay yooyu ay sóob la yooyu demul fenn mënul nekk soo neutre toog ci diggante bi naat feq bi gën a rëy ci naat feq yi mooy ki neutre kooku moom moom lu tos ci réew moom la kon kay li jaadu mooy ànd ak dëgg rek wala ànd ak fen mais ànduma ak dëgg ànduma ak fen kuy wër naar feq ba tas ak yow na jàpp te dama jàpp nii bu fekkee da ngeen da ngeen ñu mën a wax ni ñu lii xew ci réew mi kat àggul ci fu tax ñépp war cee wax loolu ku ko wax dañuy xam ne li nga wax du dëgg kon kay li leen teree wax leneen lay doon lu doon wax leen ñu ko ñu xam ko man de dafa maa jaaxal ndax yéen fi ngeen wala bokk ci fi ngeen bëgg a yem ak ñun fan la mooy di ñu utiliser quoi c'est-à-dire. exemple bu dee woykat bi day toog rek ba poosam woyof wala mu toog rek ba sentir ko wala mu toog rek ba jamono mu yëg ni actuellement ni kat ku tëgg soirée di nga ci génn moom ay ci jamonoom lañ nekk mu woote soirée dem ci rajo yi siiwal ko ci télé yi woo ay fansam ñi koy bëggee ñëpp ñëw paas mu nekk ay frais dagg ticket mu nekk ay frais euh, ticket vingt cinq mille dix mille cinq mille mu jël damm ci poosam booleek ay yeneen yuy jóge feneen mu jël def ci poosam ñoom ñoom ñoo am xel ñoom ñoo am xalaat ñoom ñoo bëgg lu baax ñoom ñooy ay nit cest à kon ñi ci des kon seen fans yi ay lan lañ ay golo lañ walla ay xar lañ kon léegi lan moo tax léegi artist yi ñoom seen yoon nekkul ci lenn réew mi lu mooy lépp lu ñuy wax buñ ci wax wala ñu ciy def seen intérêt bopp lay doon du jariñ réew ñom rek lay jariñ terewul nak mën nañ ci am ñu ci génné mais li gëna fess lañ wax surtout nak buñu tollé ci jamono yu melni kon dal ñom seen bopp rek seen bopp rek quoi man lool la gis ndax réew mi fi mu tollu amul kenn tey koo xam ni mi ngi ci réew mi te tolluwaay réew mi engagé wu la amul loolu mu mënul nekk mu nekkul luñ mën dégg mais kon yéen ñi nga xam ni nit ñi ñi ngi leen di sonnal di def seen alal ci yéen di di di di daj lu ne ngir yéen yéen ñooñu ay sénégalais ngeen mais Sénégal ngeen dëkk ay sénégalais sekk koog yéen ngeen am popularité ngeen am tur ngeen siiw ñëpp xam leen mais sénégalais yi dëkk ci di faj seen soxla mais yéen lan ngeen mënal sénégalais yi mais lii question la lu dul daal utiliser waa léegi. mbër yi jël leen itam noonu noonu lañ nekkee mbër mu am combat dem sa koñ wër ko euh, suma gars yi dama am combat tel le tel dama am combat soññee woo yi ñu waajal ko sponsoriser ko siwal ko ci rajo yi siwal ko ci télé yi nit ñi ñooy def ay frais dagg ticket ñëw jox leen ñu fay leen ngeen dem lekk seen xaalis mais lépp lu xew Sénégal seen yoon nekku ci foofu it euh, foofu it nekkul dama généraliser mais li fës laa wax li gën a fës liñ gën a miin ci yéen laa wax nga dem ci artiste comédien yi noonu mën nañu réaliser euh, grand théâtre mën nañu jouer ay téléfilm mën nañu jouer ay sketch kenn ku ci ne yaa ngi bëgg am ay fans bëgg am mbooloo ñuy seetaan say pëccëxoo bi xëccoo bi seen biir ñoom ñëpp mbooloo la ñuy wut mbooloo mi ñuy wut weesuwul ay sénégalais mais ñoom ñi ngi ci biir sénégalais yi seen film di dox ñu leen di fay seen yoon nekkatu ci mais lépp lu sénégalais yi xewle ba mu dal ci kaw sénégalais yi te mu yitteel sénégalais yi ñoom it seen yoon nekku ci wala boog dañ ñu bëgg a wax ni ñu ñoom amuñu droit féete ku amul droit li nga nekk loolu du dëgg naar fekk dong la dañu te dëgg féete dafa war képp kuy dund surtout nag koo xam ni jullit nga surtout koo xam ni am nga ngëm ba ci chrétien bi da nga war a féete mais fan nga war a féete fa coow li man ànduma féete ci président Macky Sall bul féete ci Ousmane sonk bul féete ci quiconque ci ñoom non man li ma jàpp man mooy ci wàllu politique li ci am solo ba am solo mooy nañu féetee dëgg Sénégal ñun ñoo ko bokk yi ci ëpp solo bis mu ne ma wax ko nga bëgg lekk bëgg a naan amoo loo lekk amoo loo naan ndax réew mu metti nit ñi di dund xeetu dund wu metti woo xam ni foo ko natt weesu na ko soo bëggee faju mënoo faju soo bëggee dugal sa doom mu jàng mënoo ko dugal amoo loo ko fayee soo bëggee liggéey mën ngaa lu ne mën nga ko def da gis ay magum jëmm ñu la mag say moroomi grand frère sa moroom bàyyi kenn ku ci ne la mu ne mu wóor la ni lii mënu ko jariñ dara mais ñàkk pexe moo ko ci baax ngir réew mu ñàkk dox ci te fekk na réew moo am koom am ay teraanga yu leen yàlla jox yu dul jeex jafe-jafe bi yëpp weesuwul 17 millions sénégalais wala 18 millions sénégalais yi li leen yàlla jox ñu bokk ko war ko séddoo teg ko ci taabal ji teg yoon lépp mën a dox ñëpp mën a jël seen wàll ñëpp mën a euh, santil seen bopp ci réew mi ñuy àttee ci dëgg et cetera et cetera loolu loolu 17 millions sénégalais yi waroon séddoo yëpp. Euh, juróom fukki nit ñoo ko téye di ko séddoo depuis Sénégal bi muy Sénégal ba tey Sénégal waroon bokk ci Afrique dëkk yi fi gën a riche malheureusement tey ci àdduna bi ak ci Afrique mu bokk ci dëkk yi fi gën a torox te yàlla joxuñu ñu teraanga lan moo ñu ko yóbbee suñu teraanga gi ñu bokk ñi nga xam ni ñoom lañu jox suñuy réew ñu war ñu ko tegal ci yoon ba ñëpp sentir ci seen bopp toroxtaange gi ak pauvreté bi. bëgg a jàng gi doo jàng bëgg liggéey doo liggéey bëgg loo lekk doo ko am et cetera loolu ñu tegal ñu ko ci yoon non non mais juróom fukki nit yooyu ñoo bokk alalu réew mi di ko séddoo dangay lekk ba doyal bay gàll denc say compte bay gal gàll ba yàgg ngay génn bitim réew di denc ba yàgg nga jëli say mbokk di jox ñoom ñuy denc ba yàgg ngay jëli say am di jàmm ak ña la neex di leen jox ba yàgg ñoom ñuy denc lii la Sénégal nekk tax. kenn ci ñun mënul sentir comme bi na ci réew mi justice bi lëmbaajoo jaay doole gi guddeeg bëccëg kumba am ndey kumba amul ndey ñaata ñoo ne ci kaso yi te defuñu waxuñu ñaata lañuy ñuy xëy di bundu ñaata nit la ñu xëy di jaay doole ci anam ñu tegul fenn réew mi doy waar metti donte ñi ngi sant yàlla mais mu metti trop te li ko waral di ay nit ñu nit yu yori nopp comme ñun di lek ceeb ay nit ñay yu lek dugub am nday ñu am nday ñom ñu am nyu ñun ñu am bay mais ñun ñu ñun ñu bëgg nyu tok di leen xol ñu japp suñu réew mi di ko di ci def lu leen neex mais nyu ag tay ba ci yalla mayam ñu benen sens ci jamono ñu ag fo xamni war nañ ko mëna résoudre problème bobu yalla feñal ci Ousmane Sonko mu taxaw suñu kanam ñu am ci moom yaakaar yàlla bu yàlla tas yaakaar jaare ci moom war a mën a lijjanti nag suñu réew mii ñu jaare fi une bonne fois pour toutes Sénégal am beneen xar kanam justice tege ci dëgg bi di àtte ñépp amul kii amul kaa koom-koomu réew mi ñu teg ko ci yoon càcc gi jeex ger gi jeex ñu lijjanti réew mi une bonne fois pour tout loolu di farata mais loolu xeex la boo xam ne farata la yenent bi rek dèjà nee na ku mbiru jullit yu ñorul bokkoo ci ñoom sallallahu alayhi wasallam moo ko wax nee na ku mbiru jullit yu ñorul ci ñoom kon yéen da a bokkul ci ñun wala da ngeen a bokkul ci diina ji wala te sa réew la cay dox lu mu doon ca la ca war a jur jàmm farata la ci yow nga di ko lijjanti mais ay goo gis mu war a dal sa kaw réew farata la ci yow nga di ko lijjanti kon li ñuy xeex nii tey li ñu teg ci kaw table ji dëgg la ay réalité la mais boobu yéen kenn du leen gis kenn du leen dégg mais quand même bu fekkee nag ñun di leen jariñ rek lañ mën a def mais yéen du ngeen jariñ sénégalais yi mais ngeen wax ñu ko du yoon du dëgg du yoon nan loolu laa gëm fanu gudd ànd ak wér sutura ak barke jàmmi àdduna ak àllaaxira yal nañ ko yàlla booy defal ba beneen yoon incha allah.